supervision bi aju ci commission technique amaloon ay tukkee nemmeeku ci mboolem site yi nga xam ne ni booba ak léegi ñu ngi amal liggéey bu am solo ngir ngacc ndox mi ci ay bërëb yu fasantikoo ci dëkk bu tedd bi di Touba. ci jéego yi nag tax na nag ñu gën a leeral kuréel gi ñi ko séq ak mboolem ñi nga xam ne ni jàppale sëriñ bi ci bëgg-bëggam. yaakaar naa ne ku gis image yi xam ne liggéey la boo xam ne ñi ko séq ñëpp am nañ ci conscience bu mag a mag a mag a mag. tàmbalee ko ci sëriñ bi sëñ Mouhamadou Mountakha ak état ak population yi kon kuréel bi nga xamante ne bii sëñ bi taxawal na ko ci turu junnatul liman nasamahu commission bi yor wàllu technique bi chaque jour dañuy xëy di dem ci terrain bi di xool liggéey yi ndax lépp loo xamante ni bii lu ñu war a jot ci ay mode pompe la ak la koy doxal ci fonctionnement ak la koy doxal ci nit ay technique ak main d'œuvre commission bi moo koy ànd ak jëwriñ yi nos ko ba ku ci ne boo xëyee dem ci terrain bi buñ demee ba mu xaw naaj équipe superviseurs yi génn ci terrain bi ànd ñoom liggéey bi. kon tey ñu ngi ci ci benn site boo xam ne Guédé la ci poste courant bi muy site bu mag boo xamante ni bii yaakaar naa ne liñ ci bëgg bu sottee fii ñaari fan lépp lu nekk ci Guédé ci ndox incha allahu taala dana dugg ci réseau bi kon ñu ngi fii ànd ak sëñ Bamba Mar. te commune bi boole ko ci commission bi waa Touba ca kanam ñi ngi ñëw sëñ Abdou Fatah woo nañ ko mi ñuy rejoindre man maa fi teewal Hizbut Tarqiyyah muy ñett ñoo xamante ne bii ñoom ñëpp ñoo composé commission bi ñu ngi fii ñoom fekk si fi capitaine Tine bi nga xam ne mooy supervisé brigade bu Touba bi ngir ñu ànd ak ñoom xool liggéey bi ndax liggéey benn liggéey la dañuy accordé suñuy doolee ak suñuy xalaat kenn ku ne ñu seet fa nga mën a ñu yóbbu la fa. amul lenn lu fi mu toll nii lépp. ci coordination wu comité bi la ak sous préfecture bu Ndam lu waay joxe gannaaw suñ bay mën a joxe bu joxe ba noppi bàyyi comité bi mu taxawu ko kon lu leen lu waay joxe it bu xasee dugg ci commission bi yow feeñatoo commission bi moo feeñ moo tax dina dégg ñuy wax naan maire Dakar joxe na ay groupe mais su xasee bu joxe groupe lay jël groupe bi en charge comité bi la ñoo leen jox carburant jox leen fonctionnement héberger leen leen taxaw biir ak biti ngir ñu mën liggéey waaye amaa jëmi moto pompe moom maire mun na ko joxe epase mun na ko joxe bonne volonté mun na ko joxe ndax am na tey koo xam ne joxe na sans moto pompe te tudduñu turam kon li ci am solo mooy lu waay joxe boo xasee ba joxe nañu wax ne diw joxe na nangam waaye bu xasee bu ñu ci comité bi nag day mel ni jëfi sëriñ bi rek moom mooy li nga xamante ne bi moom mooy feeñ. ñenn ci techniciens yi nga xam ne nii ñu ngi nekk sur le terrain ñu ngi leeral itam ñoom boobaak léegi seen liggéey naka lañ koy doxalee. effectif bu bu ne day nekk cinq ba six waaw saa bu ñu xëyee bu ñu déparé commission bi day ñi nga xamee ne ndox dafa dugg seeni kër dañuy ñëw ci biir ñu ñuy bindu bu ko defee bu ñu xëyee ñu yewal équipe mu dem ci terrain bi équipe bu ne saa boo xëyee boo demee da nga dugg ci kër euh, def nga def vérification bi jël numéro identification bi site bi ak numéro bi le commencé vider soo soo paree aussi da nga fay jaar nga photo waat ko nga recensé waat ko dugal laat ko ñëwaat yóbbuwaat soo wàccee nga def rendu compte waaw loolu tamit dafa am solo ci liggéey bi waaw euh, ndax it wax dëgg yàlla bu liggéey bi daal macha allah saa bu ñu xëyee dañuy def ay ay neuf kër da ngay gis digg boo xam ne day def dix kër sax par jour euh, bi ñu commencé seq léegi daa ba pare war naa war naa mat six jours au sept daal te sit yi dafa bari da ngay dem benn kër boo xam ne daanaka dafa lekk dafa nekk am loo lay doon te loolu da ngay euh, maanaam day xa day dem ba xaw a météo day def intervention sa ba deux heures de matin ndax bi ndax biig rek ñoo ngi fi fi ba une heure de matin waaw di gërëm woo par jour équipe bu ne mën naa def quatorze quatorze sites par jour par jour maximum quatorze sites comme ni ma la ko waxee tamit noonu la ko doxalee boo duggee ci kër da ngay def opération bi nga licencié ko jël numéro contact bi waaw soo paree aussi nga rendre compte jox ko waa comité bi pour ñoom ñu vérifier ba xam ndax kan fa yebal def na liggéeyam wala wala déet ñoom leen gërëm bu baax aussi ci liggéey quoi macha allah wax yàlla. amagul ngeen ci benn jafe-jafe. non non wax dëgg yàlla demagul ci benn jafe-jafe amagul benn jafe ndox mi tamit wax dëgg yàlla naam métti na waaye nag daanaka maanaam bu taw yi fi taw ñaari fan yi maanaam lu bari moom wax dëgg yàlla wàññeeku na askan wi nga xam ne ni ñoo féete ci bërëb yi nga xam ne dañoo indoone gannaaw bi ñu gisee équipe technique yi ak seen liggéey fàttewuñu benn yoon biral seenu cant jëmale ci liggéey bi nga xam ne nii mu ngi am ci ndigalal Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général des Mourides. sama kër moo nekk ne léegi nag ñu ngi sant dañuy jiite ci nuyoo bi sax Cheikh Ahmadul Mountakha xam mooy suñu kilifa ñun ñëpp di ko sant bu baax di ko gërëm bu baax nit la koo xam ne nit ku baax la te nitu diine nit ku aru yërmande a Cheikh Saliou waxan ni ku dul yàlla mi bind bindee fi ëppoo ma yërmande ci ñoom. mooy foofu la nekk kenn ëpp ko yërmande ci doomu aadama yi damaa jéggi damaa jëlale Touba sax waaye ah, eh, maanaam lépp luy xew ci adduna bi ak fu mu mën a doon ak mu mën a doon yëkkati na alam dugal ko fa ak lu xew rek kon rek rawatina ak Touba gi nga xam ne moom moo ko yilif di lépp di léppi Touba lépp la ci def lépp luy moye def na ko ci lépp luy dimbal def na ko ci ñu ngi ñaan suñu borom di ko ñaanal mu yàgg fi lool lool Mbàkke lii suñu jafe-jafe nag mooy fii ah, ñu bari sax xam nañ daana taax da ndox yàgg na fi am waaye nii mu aggravé gën a grave nii gën a mel nii mel moom wax dëgg yàlla bi ñu jaree mais sapeur pompier le euh, capitaine Tine ak ñi topp ci moom muy colonel Pam Ngom ba ci këjee ci gën a suufe waxtaan yaat guddi ak bëccëg waxtu wu ne ñu ngi ci site bi bañ nañ ko sax balaa moo taw dañuy indi seen raccord raccordé tak di xaar taw waaye nag lii dafa jéggi dayoo ba dem na suñu kër yi tey ji dem na ba ndox tey nangu na ko nangu noor ak nawet dañuy manqué noor ak nawet dem nañ ba nga xam ne dañoo dafa kere benn nab nab nga fi nekk ñu dem ba tamit mu def fi lañ ñax bi ñu wax barax nga xam ne fees na ko dañuy génn dañ koy quitté moom moom mënut mënut ñoo àgg ba ñu génn. kër gi moom mënutuñu dëkk moom. fi ñëw am na am na ah, li fi ngeen fi indi am na ah, defar na ma ndax fenêtre bi ci kaw. xoolal ndox mi doon jaaree dugg ci biir néeg yi armoire yaag dund baag lépp ak ci biir ak yére lii ma sol ak li ñuy sol moo am. te maag sama bokki dëkkandoo yi ñëpp ñoo ci bokk yem kenn kat ku fi ñàkk jàmm yàlla la ko xañ te yàlla lim def nag ku yóbbu nangu ko. jafe-jafe yi moom comme ni nga paa bi waxee rek ñun waa koñ bi yëpp koy dund waaye dañuy sant yàlla xam na yàlla moo ñu ko teg gis kër gi bi ñu ndox mi dafa demoon ba tolluñu ci suñuy ndigg mais sant nan gis nañ taxawaay bi ndax machine yi ñëw na pompe nañ ko ba lu baree baree baree baree wàññi ko nañ ko léegi fi mu nii ndox mi parce que li ñu wër pàkk yi ñuy wër rek moo ñu sonal comme ni leen ko kilifa gi waxee rek jéem a saafara li nga xam ne mooy li wër li wër koñ bi ñëpp ñëpp am ñëpp am jafe junatu waaw junnatun liman nazamahu ñi ci bokk ñëpp ñu leen di sant di leen gërëm ak Touba ci kanam ak ci mairie bi. di ab liggéey boo xam ne nii nii ñu ko daal di nemmeeku ci superviseurs yi aju ci commission technique noonu la amee ci mbooleem wànqaas yi nga xam ne nii dañoo daal di seq kuréel gi di junnatun ci fàttali di kuréel gi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké taxawal fasantikoo ci commune bu Touba Hizbu Tarxiya ak tubaa ca kanam ngir ñu wallu nag mbokki taalibe yi nga xam ne nii danoo loru ci mbënd mi ci anam yu fasantikoo wa jannatan li saalikin muriidi wa jannatan